waa 100 pour cent Abdou Lahad Ka maire taxawaayam ni mu ko gisee mooy taxawaay bu bu bu mu rafetlu comme ni ci ñëpp ni ko ñëpp rafetloo ñëpp ñu bëgg lu baax laa wax. parce que moom fi noonu bu may wax man damay wax ak ñi nga xam ne moom ñoo bëgg lu baax ndax àdduna ñaar fi nekk ku bëgg lu baax ak ku bëgg lu bon kon suñuy wax maam dañuy wax ak ñi nga xamante ni maanaam lu baax moo leen intéressé lu baax moo leen ñor. ndaxte maire kenn ku nekk xam ne ma dama wax ni maanaam ci Sénégal. amul benn maire boo xamante ni maanaam ci feebaru coronavirus bi man nga ci musal maire Blanc ci lim ci def. Mm. li tax ma wax leer laa ko teg. mooy maire bi nga xamante ni première maire bu njëkk a génne 10 millions ci ñàkk boppam. joxe ko maanaam ci feebaru coronavirus bi. Mm. ginnaaw bi sëriñ bi mu taxaw bi sëriñ joxe. Mm. amul keneen ku ko njëkk a participé kon yaakaar naa ak yeneen ak yeneen tey mu def ci dëkk bi nekk na loo xamante ni aussi yaakaar naa nekkatul loo xamante ni lu ñëw di wax la adduna bépp ñoo ko gis. li maire def ci mbas bépp gis nañ ko. Euh, depuis boobu ba léegi waaw def ma ci sorte génn wax ci ndaxte bu fekkee da ngay def maanaam da ngay da dem ku la wax nga bëgg a génn maanaam maanaam maanaam maanaam sànni ko pour nga àgg fa nga jëm loolu day jafe. depuis bi programme bi jeexee mooy programme séddalam ceeb boobu ngay wax ak li nga xamante ne maam mooy li génn lépp def ko ci feebaru coronavirus bi am na ñu génn di critiquer loolu di xajamal loolu noonu di yàq noonu mooy lan mooy la ma waxoon mooy ndaw ñi ñenn ci ndaw ñi nga xamante ne maanaam à fois ñoom ci dëkk bi ndax wax naa ko sa émission bi ma fi mujj def ma ni dëkk bi il faut sëriñ bi gëna a gën a gën a gën a gën a gën a gën a gën a gën a gën a waxaat ak ndaw ñi doonte sëriñ moom surtout ci wax la dëkk waaye mu gën a mu gën a soññewaat rek ndax te soññewaat bi man damaa jàpp damay dugg damay ci biir ñeneen dañ dugg ci biir ndaxte ndaw ñi nga xamante ñoom à chaque fois heure bu ñu xëyee ñi ngi yeewoo ci dëkk bi te bëgguñu maanaam lu jëmal dëkk bi kanam ndaw yooyu kat dañoo war a wax dañoo war a wax ak ñoom bu nu bu nu nangu dégg bu nu nangu dégg kilifa yi war a jëflante ak ñoom ñu jëflante ba dëkk bi ñaar fi nekk ñi koy teg ci yoon ak ñi ko teg ci yoon ñi ko teg ci yoon nag te ñëw bokk làqu ci biir dëkk bi ñooñu dañ leen war a gën a dëkk te loolu dafa am ci biir dëkk bi dafay am ay ndaw yoo xam ne maam tey à chaque fois ñoom ñu ngi ci biir dëkk bi duñu duñu dox ci loo xam ne lu jëmal dëkk bi kanam la lu heure su kilifa defee li mu war a def ñu génn toog ci maanaam yenn sit yi di def lu wax affaire sabotage di wax di pourcentage wax di wax di wax pour pour yàq wax def pour pour lu leen neex mais ki nga xam day jëf lu leer kooku noonu maanaam mënoo fexe fexe fexe fexe parce que ay politiciens lañ yàgg naa ko wax dama ni gone yi nga xam day def politique bëgg def politique muy métier hmm. politique du métier man mii di wax yow dees damaa xëy ba wàcc ñëw doog a toog fii di di wax te li may wax yaakaar naa lépp pour luy concerner dëkk bi leen dëkk bi mais waxal ndax maire mais may wax li mu def ci dëkk bi la ko def parce que bu fekkoon lu ma lu ma lu ma defal la man ma toog di wax du safee mais li mu def ci dëkk bi loolu laay wax kon man bu ma dee wax man dëkk bi laay waxal la dañ leen ñu nekk ñoo xam dëkk bi ñoo ci dëkk bi maam dëkk bi ñor leen ñu nekk ay responsable doo ci koy def ay gone leen yoo xamante ne maanaam tey dañ leen ni ne di leen dafa am ay gone le maire loolu mooy loolu loolu loolu dëgg xale yooyu noonu li ma leen wax maanaam mooy ñu arrêté yooyu ñu def te xam ne dama ko yàgg dama leen ko wax waxati leen ko waxati leen ko monsieur le maire Abdoulaye Ka du ko ni santaas maire képp koo xamante ni da ngay wax mu wóor yaakaar dalay woo pour seeral la da ngay nax sa bopp maire képp koo xamante ni maanaam da ngay wax da ngay wax wax wax say wax di wacc waaye maire du woo nit di ko seere parce li nekk leer la li li mu def lu leer la li mu def lu ma lu sëriñ bi la li mu def lu sëriñ bi lu sëriñ bi lu sëriñ bi gërëm la kon yow mi nga xamante ne ko ŋàññi yow nekk bi yow boo ko dee loolu dañoo yenn gone yi dañoo am lu bëgg ci monsieur le maire yenn gone yi ay kilifa leen ay kilifa maa ko yu nekk fii ci dëkk bi di monté pour attaquer le maire parce que dama ne la képp koo xam ne ku teg dara ci dëkk bi doo gis mu attaquer maire. képp koo xam sëriñ bi moo ko fi teg di ko liggéeyloo muy kilif muy kilifaam. Mm. te man damaa jàpp ne maanaam bu fekkee tey ñun ñëpp dañoo tënku maanaam ci ci biir kilifa kilifteeg boobu doon tey sëriñ bi di ko liggéeyloo leer nekk liggéey bu wóor ko mais ñun bu fekkee dañ ne ñun yaakaar naa dañoo war a dugg biir cant googu biir ngërëm loolu waaye waruñu dingaañu loola ba ci ba ci xale yi sax dañuy jóg naan sëriñ bi daa war a def nangam sëriñ bi daa war a def nii sëriñ bi daa war a def naa a a tegg kii sëriñ bi dafa a tegg kii ñoom a def nangam ak sëriñ bi daa war a wax nangam il faut ñu jóg ci ñoom xale yooyu noonu xam ne li ñuy def ci dëkk bi nekkul loo xam ne lu yàlla gërëm la nekkul lu sëriñ bi gërëm la parce que sëriñ bi moom li muy monsieur le maire la Lahad Ka sëriñ bi ñun ñii taalibe bi dëkk si dëkk bi bokk moom nekk si dëkk bi sëriñ bi moo la gën a xam kan mooy monsieur le maire Abdou Lahad Ka bu ko leeroon li mu ko jox mënu ko li mu def tëg ko ci yoon sëriñ bi du ko bàyyi muy dem kon maanaam lan moo xew mooy li ma la wax rek ay gone yu monté kon daal da ngaa jàpp ne seen wax yooyu amul lu muy jëriñ lu muy leen lu muy jëriñ ak lu muy ak lu wàññi te seen wax yooyu du meer moo koy bàyyi xel mais dama la ñun comme ay ndaw lañ di ànd ak maire di gisee koo xam dafa wax loo xam nekkul du dëgg ñun dañuy génn maanaam ñun leeral ne kii li mu wax ni nekku dëgg parce que maanaam yow la fa àgg du man danaan agul foofu mais nag ku wax tamit ñu teg dañu ñëw tegg loolu noonu li ñu wax dara nga xamante ne maanaam mooy responsable muy ñaar sëñ moo jël dëkk bi jox ko monsieur yaakaar naa képp koo xam ak sëñ Mountakha du ñaar kenn lañ ñaar ñooñu monsieur le maire Abdoulaye Ka làq na seen gërëm kon bu keneen day ñëw di wax leen kon kooku li muy wax maanaam day nekk ay waxi sabotage rek waaye nekkul waxi waxi loo xamante ni waxi wax wax wax ju wér la. kon du programme politique moo leen moo leen moo tax ñu attaqué maire. Hmm. non du contexte politique. ay attaque personnelle dama la ko wax. Hmm. am na ci gone yoo xam ne boo leen woowoon tey jox leen 10 000 francs wala jox leen 5 000 francs dootuñu attaqué maire maire mënul def loolu. gone yi jaar si fii yëpp ak gone yi ci site internet yi yëpp ci woon jox la 20 000 du leer wax ku ci woon jox la 20 000 francs dootoo waxati du ci jox jox nit ñaar parce que moom li muy teg lu leer li muy def lu wóor la. Hmm. kon te ku nekk ci dëgg waroo ragal waroo ci. yéen dama waaw loolu loolu loolu moom loolu mooy li nga xam ne maam mooy mooy mooy hmm. ñun ay ndaw la xam dañu ànd ak monsieur le comme noonu la ko waxoon ci début en dama koy wax ay ndaw la ñoo xam dañu ànd ak monsieur le maire Abdou Lahad ko jàppale ci liggéey bi nga xam ne ko Sëriñ Tuubaa hmm. xam ne moom tegu ko fenn dañuy ko ñoo a defar ndaw ñi xamante ni nag maanaam tey dañoo nekk ci biir dëkk bi Ousseynou à chaque fois ñu dox ci loo xamante maanaam dara neexu ci sëriñ bi ndaw yooyu dafa jot la temps maire ñoo yem benn atte dañ leen dañoo dañ leen dañ leen war war wax ak ñoom ñu war a wax ak ñoom di wax ak ñoom seen kilifa yi tamit seen waajur xam bu ñu téye micro yi di wax ay attaqué maire seen kilifa yi duñ ko yëg ñoo dugg ñoo di jégalu man gis ci ndaw yoo xam kilifa yi ñoo ñëw di jégaluwaat di jégaluwaat ak maire di jégalu maire. Ah am na ci ay booy yoo xam ne toog nañ fii. Hmm. attaqué maire seen ay waajur ñëw nañ jégalu maire. Hmm? waaw ci sa fii lañ ñu ci bëree bëree bëri bëri ci seen internet lañ téye di wax. Hmm.